ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب innaka qulta wa qawluka alxaq wa wacduka alsidq udcuunii astajib lakum wa qulta ayda washkuruu lii wala takfuruun فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول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 min baadi ma haddaba bittaxalli wa jarrani fiihi ila alculuumi walfawzi bilcamali bilmacluumi summa salaatu bisalaamin tabica ala alladi qasdiya an attabica ala alladi man bimaraadihi iqtadaa fi sirri waljahri yakuunu muqtadaa هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت جئت للأمداح والإطراء أزهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا اجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هواي قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات wa anta dul jalaali wal ikraami fa najjinii wa awlinii maraami minka aruumu lyawma an akuuna mimman abaw li gayrika rukuuna wa an utiicaka binahji lmustafaa sunnatihi albaydaa'i yaa man istafaa yaa gaafira aldunubi yaa qaribu inni ubaydun haahuna garibu lii hab bidaaka wa li ixwaani jamic sacaadata addaarayni xaqan yaa samic hab liya fi haada adduca alijaaba bilmustafa walaali walsaxaaba hab liya xayra alqismi fi almaqaasimi wa lidawi ddiini bijaahi alqaasimi وليكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وق أذاي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جثماني في قبر البلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا habli bi jaahi man huwa almuxtaaru dunya wa uxra xayra ma axtaaru wajcal xijaaban baynana wa bayna kulli adan waltakfi canna alxayna يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى وأملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طوبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل صلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من خدمني أو زارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى أو مالا wa kullu man chatamani aw laama fa hab lahu tawbata wa stislaama fa kullu man asaa dannahu biya fa liyaqallib qalbahu ya rabbiya waltakfini adaa jamii alaalamiin waltakfihim adaaya ya rabbi amiin wajcal binaa'iya binaa'a caafiya يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم wajal binaa'iya binaa'a l-ihtidaa waltakfi anni kayda kulli dhi i'tidaa waltakfini d-dahra adhaa ash-shaytaani wa hizbihi l-baaghiina fi l-awtaani waltakfi anni kulla shakhsin lam yurid wajhaka fasrifhu sarii'an idh yarid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 ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفه عن نكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسوء والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببتا ولتكفنا عن فعل ما أبغضتا ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاحا في كلتي الدارين والنجاحا bijaahi dhal yawmi wa jaahi man wulid fiihi farumnaa mithlahu wa lam najid muhammadin afdali xalqillaahi bilaa taraddudin wala ishtibaahi alayhi salli abadan xayra salaat bihaa nuraafiqu alxiyaara wathiqaat wahab lanaa axda alladi aataanaa wa tarka maa an ficlihi nahaanaa xataa yakuuna kullunaa fi lxarakaat muqtadiyan bi sunnatin wassakanaat wa najjinaa bijaahihi min dacwaa waltakfi cannaa kadiban wa lahwaa waltakfina alhawaa wa maa laa yacnii wa bika daban agninaa yaa mugnii yallaahu magfiratuka almu'ammala awsacu min dunuubi caasin muhwila yaa barru raxmatuka arjaa عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب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 واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكني حط يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياه وأحيني في طاعة يا ربي يا wajal yamiini ka saxaabin fi saxaa maymuunatan fi shiddatin wa fi raxaa yallaahu yaa wahaabu yaa aclaa rafiiq biyaslukanna alyawma anfaca tariiq bixurmati almushaffaci almuqarrabi wal aali wassaxbi wa shahri rajabi judliya bi التقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين صيتا يعتلي yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana qubal nadmana bi xurmati alxasani walxusayni mac xurmati kulli man ila saxbin jamac wa xurmati albaniina walbanaati wa xurmati alaali maca alzawjaati wa xurmati alrusli walanbiyaai walculamaai maca alawliyaai وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع wa anta xasbiya falaa udaaficu yaa xayu anta dul jalaali alwaasicu wa anta xasbiya falaa unaasicu yaa rabbi anta dul mixaali alwaaxidu wa anta xasbiya fala ukaabidu yaa fardu anta dul ataaya almaajidu wa anta xasbiya fala uxaasidu mawlaaya anta dul hadaaya annaaficu wa anta xasbiya fala uqaaticu anta alladi tuuli muxibbi ka hudaak wa anta xasbiya fala abgi siwaak faxmi ximaaya liyakun xisnan xasin an kulli di naabin wa dufrin kulla xiin المسكين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح الرياح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وعقربا وأسودا وعاقدا ونافثا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا wa najjini min charri saakini albalad wa charri kulli waalidin wa maa walad waltakfini charra famin wa cayni wa kulli man qasadani bilxayni wa najjini min dulmi kulli zaalimi wa charri kulli jaahilin wa caalimi wa kulli saamitin wa kulli naatiqi wa kulli maariqin wa kulli taariqi وكل أرذل وكل فاضل وكل قاهر وكل صائل وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد wahab liya alqiyaama fi llayaali walsawma fi nnahaari bilikmaali wa xalliyanniya min alradaaili wa kun mujammiliya bilfadaili wa zakki lubbi waftax rabbi liya fatxan mubiinan laa yuraa limithliya وليهب حذاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي وهذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا خضما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى دارين كن معاذا وفيهما لي لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا وليهب ترقية وحبا wakun waliyi fi lxayaati walada mawti wa fi lqabri wa fi lxashri gada wala tazalli yaa xafiidu xaamiya wa xaafidan wa xaajiban wa raadiya wa jaadiban wa murshidan mucallima wa qaaidan ila alhuda mukarrima wa haadiyan wa naasiran wa mutxifa bikulli ma yanfacuni wa biltufa وبسلك مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلك رب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة راحة لي من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وصيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء wa jannatan li saalikin muriidi wa junnatan an haatikin mariidi wa manfaan li kulli haadin muslimi wa madfaan an kulli aadin mujrimi wa xajjatan liman bi ducfin irtadaa wa xujjatan ala muxaalifin gadaa wa matlaban li taacati arraxiimi wa mahraban min taacati arrajiimi wa maslakan li subuli ittibaaci wa matrakan li subuli ibtidaaci wa maskanan li jalbi kulli xayri wa maskanan li dafci kulli dayri wa sababan li fatxi xayri alxaybi wa sababan li dafci dayri alcaybi wa ardahu jacal arda rizqin wa amaan wa rahmatin wa saacatin kulla awaan yaa daafica alaswaa'i walakdaari bilmustafa dfac kulla suucan daari واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع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 واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني والتحم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات xutni an alsheytaan ya jalilu wa maskani wa kullama acuulu ya allahu ya xafiidu ya da alamri ya faa'iqa alxalqi macan bilqahri nafsi wa diini summa ahli walwalad wa maskani laka wadiicatun abad wa haakada dunyaaya mac uxraaya fa fiihimaa canni isrif arrazaaya wasrif cadaaba annaari can jumlati حكما بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة وليجد بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد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 inni tubtu ilayka wa inni min almuslimiin rabbi najjini min alqawmi alzaalimiin rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasiriin rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanaka faqina cadaaba annaar rabbana innaka man tudxili annaara faqad axzaytah wa ma lilzaalimina min ansaar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 wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan nufaariqu biha iblisa wa ma waalaah wa nulaazimu biha rasula allahi sallallahu taala alayhi wa sallama wa ma waalaah wa naxuuzu biha xusna alxaatimah subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. ربي واهدني هديت الذي قد Thank you.

rafetal ay waxam

الذي سيكون إلا والجبال ما تقول فخذني من الهداية président de la république te moom gis na tamit gis na ko ñaare ñaari weer a ngi nii mu ñëw fii Touba ñaari yoon premier ministre bi ñëw tamit euh, les ministres yëpp ñëw les services même la présence des forces de l'ordre l'armée nationale la police les sapeurs-pompiers ñëpp ñoo teew fii ci euh, Touba loolu tamit day wane ñu sant bu baax El Hadj ñu sant bu baax Abdoulaye laa koy jox papa wuyu ma waa taxawal ñu may am euh, appareil appareil caméra yi caméra ah, waaw sëñ Sidi Maxtaar ñëwal fii may may sëñ Sidi Maxtaar ka Sidi Maxtaar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 mbooloo mi nu door liggéey bi ci ndigalul sëriñ bi nu door liggéey bi ci ndigalul sëriñ bi bala ñuy tàmbali nag nu sàkku ci ñépp rekk ak teewlu akuk dal ba li fiy rote ci ay kàddu nu man koo taatan man koo jariñoo duñu guddal dañuy jox sëriñ Abdoulaye mbay peex kàddu gi mu ubbi ñu door a jox sëriñ Sidi Maxtaar Ka ni mu ko baaxoo defee at mu jot ci délégation yi nga xam ne ñoo fi teew moo xam ñu jóge ci biir réew mi wala ñu jóge ci bitim réew mu tudd leen suñu noppee itam nag sëriñ euh, Mountakha Guèye yëkkati ay kàddu ñu doore nag dugg nag ci waxtaan wi kon sëriñ Abdoulaye bismillah ñu may sëriñ am fatu mu waaw léegi nag ñu neen ñëpp suuf ñu ngi waxtaan wi waaye nu rafet lu ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla fi yàgg Mbàkke te wér Cheikh Mouhamadul Muntaxa liggéey bu rafet bii mu liggéeyal Bamba maamam Cheikh Madul Bachir bii këri diine yi ci ak këri lislaam yi Sénégal benn kër manquéwul kon bis sëriñ bi waxoon ni nañu ma sant la yàlla Cheikh Amadul Muntaxa def na ko nam ko bëggee waaye ànd na koog lislaam bi yëpp kon dañuy jëkkanteeg waxtu wi ku ne xam na waa kër sëriñ Tuubaa waxtu nu ñaan Mbakke liggéey bii mu liggéey ci université bi ñëpp gis ko teg ci bët jël lii teg ko ci loxol rakkam yu baax yii ñoom ñëpp ñu ñëw toog ci seen rakk ji Cheikh Mamadou Bachir ministre de l'intérieur moom it ñëw di ko jox Touba war ma kon noo ngi ñaan ñëpp déglu noo ngi ñaan ñëpp déglu bismillah Cheikh Sidi Makhtar bisimilah Cheikh Sidi Makhtar noo ngi ñaan ñëpp yegg suuf bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa baraka wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuha alxaflu alkarim inna allaha subhanahu wa taala ya'muru bi adaa'i waajibi shukr wa yamqutu kufra nicmati wa nukraana aljamil fa qaala azza min qaa'il in takfu in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li cibaadihi alkufra wa in tashkuru yardahu lakum والشكر اعتراف بالجميل يكون في قلب المؤمن محبة وإخلاصا وفي لسانه ذكرا وثناء وفي أعضائه عملا وسلوكا قال الشيخ الخديم radiyallahu anhu ashkuruhu wa laa azaalu ashkuruhu wa bi fuaadi wa lisaani adkuruhu nawaytu shukran bilmidaadi walqilaam walqalbi waljasadi fi daari salaam diplomate yi ñoom itam nga xam ne ñoo fi teewal seeni réew diplomate yi nga xam ne ñoo fi teewal réew ñëw nañu ak ay délégation yu takk yu bàyyi ko bitim réew njabootu Cheikhul Khadim tam yabal nañ seeni ndaw waaye ñoom ñëpp dañoo maase wax ne Cheikh Mouhamadul Bachir bu fi nekkee ñoom ñëpp la fi nekkal te doy na leen sëkk kon jataayam bi wuutu na fi ay kilifaam waaye teewul ñoom it yabal nañ ay ndaw kilifa yi yoonu murit wépp yabal nañ ay ndaw jullit ñi ñi mën a ñëw ñëpp ñëw nañu soppe yi ñi mën a ñëw ñëw nañu waaye taale bi itam ñi mën a ñëw ñëw nañu mbokk yi Cheikh Ahmadou Bamba da def ngeen di seede ci wax ji muy wax muy seede soo xam ne da ci leeral ki mu doon ak fi mu teg tànkam moo ku mu àndal mu ne lakum xitaabiya ahlal asri jumlatakum bi fadli man su'lana aataa wanilnaahu li yashhadu daara anni muminun abadan wa muslimun muxsinun ma xasbiya allahu kon ci imaan ak islaam ak ixsaan ci la teg tànkam mook mbooleem ku wax ne moom nga àndal te sant gi muy sant yàlla nge ngeen teew di ko santale yàlla négul ba mu yomb ba jafe-jafe yi jeex mu door a sant waaye ba muy metti la doon sant laka shukuru wa ridwaanu minni wa shahidi raqibun atidun fi jazirat ma yomba kon ba muy sant ñaari seere képp la am muy raqib ak atid ca ma yomba waaye bi mu ñibbisee nag ba amug yaatu nag la ko santaane wax ne rabixtu fi rabixtu fi tijaarati fi gurbati wa ashkuru l akrama inda turbati sant gi muy sant yàlla nag da koy sant ci léppam li mu am ak li mu man ak li mu xam yashkuruka alqalbu maa allisaani في البحر يا ذا الجود والإحسان يشكرك اللهم كلي في الوطن مثل شكوري في البحور بالعطن dem na sax ba lakk yi mën a lakk yépp da ciy sant yàlla ndax wolof mooy lakkam arab da koo jàng waaye français bi nga xam dafa yàgg ak ñoom ba lu ñu wax mu xam ko sax da cee sant yàlla mu ne lan rabba sama wal ardi rabbal arshi laka saraftu jërëjëf wa merci rabba sama wal ardi rabbal arshi laka saraftu jërëjëf wa merci kon sant na yàlla ci wolof sant ko ci français sant ko ci arab sëriñ Bachiru nee na mi ngi ànd ak ñëpp di ñaan jàmm ci réewi lislaam yëpp ndax ku ne ñool-ñool am ay xeex muy lu metti bu sañoon àdduna sëppay am jàmm rawatina réewi lislaam kon nee nañu bokk di ñaan yàlla mu def jàmm ci réewi lislaam ndax jàmmkat moonu jikk fii ci àdduna bu nu duggee bàmmeel moonu jik bu nu dekkee moonu jik wasalaamu alayya ma wulittu wa yawma amuutu wa yawma ubaasu hayya sëriñ Bachiru nee na senegal jàmm ji fi am nga xam ne sunuy maam ñoo ko jëmbët nga xam ne sunuy maam ñoo ko suuxat jëmbët nee na nañ ko gën a sàmm sunuy bàyyi ñoo ko ñi bokk ko jénn diin lislaam xam ne ñoo bokk ku lépp ñu àndandoo bokk nday bokk bàyyi ñi dëkk ci réew mi sax te bokkuñ diine ñoo bokk réew mi nañu àndandoo bokk ndey bokk baay kenn ku nekk la nga jàpp nga jàpp ca bis boo dajeeg yàlla yàlla moom mooy atte saw fa tara idan jaral xubaaru a farasun taxtaka am am ximaaru sëñ Bachiru nee na tam mi ngi sant di kañ ndaw ñi nga xam ne bu ngeen seetloo dañoo laxasaayu di jàng alquran di ko mokkal fu ñu dem ci àdduna jongante bu ñu teew dañ fa yëkkati turu Sénégal di jàng xam-xamub di te ku ne xam na xam na ne daara wa jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum fi sabilillah kon mi ngi leen di ñaanal yàlla fay leen yiw te seeni liggéey nee na mi fàttali ndaw ñi nga xam ne dañoo jóg am jom dañoo jóg am fit tax ñuy tàbbi ci géej gi xam ne téere lañuy ba des na ne am na am na ne am nañu fit waaye jom ak fit li muy baax baax baax doyloo yàlla wéeru ci yàlla yaak kaar yàlla da ko gën a wóor ndax am nañu dëkk ci Sénégal gi wala sax dëkk ci dëkk bii mosu ñoo génn te te yàlla li mu bëgg rekk mooy am wala yakunu xayru maa yuridu walaw xarista ayyuhal muridu nee na tam dafa seetlu at yu mujj yii ndaw ñi ak lenn ci mag ñi am lu ñu xewal mooy weer wi bu teroo safar dañ koy gàttandu di def ay bernde di jàng xasida di jàng alquraan nee na loolu day lu baax la waaye nag gis na ne ñu ci rax loo xam ne bokku ci gis na ci mbooloo yow xam Sow nee na nañ ko bàyyi ndax sëñ Tuubaa loo koy defal yàllaa tax te yàlla lu mu doon dara day sol ñaari mbubb ñaari mbubb nga koy solal mooy day sell yàlla rekk tax te day dëppook sunnas Muhammad alayhi salaatu wasalaam mimman aslama wajhahu lillah mooy ixlaas wa huwa muhsinun mooy dëppoog sunna fa man kaana yarju yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan Ahmad Kunte mu ànd ak mbooloo Canaba Serigne Ahmad Seck ma nga xam ne moo yor kàddu xalifa ba teew na ànd ak mbooloo laayeen Sina Issa Laay ma nga ne jàkkaarloog man def ko na ko daan defee ca jamonoy sëñ falu teew na fi ànd ak mbooloo njabootuk maam Ahmadou Baro ca Thiès Serigne Daam Njëgéen musta wóote màggal gi ma nga ne toog njabootu sëriñ Abbas Sall sëriñ Abdoulaye Sall doomam teewal na fi xalifa bi ànd mbooloo njabootuk maam Maska ca Gàmbi te ku xam na ne maam Maska wayjuram wu jigéen ak wayjur maam Mor Anta Sali ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay teew nañu fi Mouhamad Tahir Ka teewal jàppal fi xalifa bi Medina Baye Niass Cheikh Mouhamad Arabi Niass teew na fi ànd ak mbooloo teewal fa xalifa bi Cheikh Mahi waa Mbëllëxe Serigne Aliou Dia ma nga ne toog yàgg na fee teew teewal fi xalifa ba alxaaji Rawhan Ngom ca njabootam yabal na Serigne Codé Diagne mu ànd ak mbooloo Cheikh Ibrahim Quraysh Diop ah, bokk ci njabootu Ahmad Quraysh teew na ànd ak mbooloo Cheikh Tidiane Fall fi euh, mbooloo mi tudd Ibadu Rahman professeur Serigne Assane Fall bokk ci njabootu ci laala teew na ànd ak mbooloo Serigne Ousseynou Sakho bokk ci mbootaayu doomi soxna yi teew na fi ànd ak mbooloo Serigne Moustapha Aydara guyat ca guyat teewal na fi xalifa bi ànd ak mbooloo ndeer naar ànd na ak mbooloo alxaaji jibi njaay pete warak ànd na ak mbooloo sëriñ mouhamadou sall bamba moodi nga xam ne bamba moodi euh, sëriñ bamba sall mooy turandoo Cheikh Ahmad bamba ñoom kenn ëpp leen cër ci dëkk bi ma nga ne toog di jàkkaarloog man alxaaji xalifa jaay bi taslima ànd na ak mbooloo moro sëriñ alfa combaan ànd na ak ñang jiite leen teew nañu sookoon sëriñ abdul aziz dem mi yor kàddu xalifa ba teew na fi Gët Ardo alxaj ajjuma ba teew na ànd ak mbooloo diigaan Cheikh Ibrahima Sow def na nam daan def teewal fi xalifa bi diigaan ak Touba moom du ñu ñaar benn lañu Fulaadu ca Casamance Cheikh Saad bu Jóob ànd ànd naag mbooloo Kédougou Cheikh Yoro Mar ànd naag mbooloo Louboudou Sow teew na ak mboolo Kébémer Cheikh Talib Bouya daare loo ànd naag Malick Khady Fall alxaaji Malick Fall moo jiite mbooloo ma Daaru Salaam kër alxaaji Omar Ndaw sëriñ ba Basiiru Ndaw ànd mbooloo Pakaw alxaaji Siidi Dramé ànd naag mbooloo Tafsir Maba Jaxu almujahidul akbar njabootam Cheikh Abdul Wahab Ba ànd naag mbooloo al imam alxaaji Omar Diène maa ngi ne may jàkkaar lool ku ne xam ne seen taxawaayu ñoom ci weeri yi weer lislaam yi nga xam ne moo fi teewal Euh, jamiyatu al aima wal ulama ma nga ne toog rabitatul fi Sénégal imaam isma Ismaila Ndiaye teew na fi ànd ak mbooloo xisbullahi imaam Ibrahima Kan ànd na mbooloo siiwal sëriñ Ibrahima Ka teewal na fi alhaaji Tahiru Ka ànd ak mbooloo njabootug maam Maxtaar Kala Dramé sëriñ Omar ak sëriñ Maxtaar ñoo fi teewal xalifa ba sëriñ Maxtaar tafsir Mor Ndiour njabootam def nañ délégation imam Mouhamad Seck moo ko jiite mbootaayu daar yi dëkk Kër Massar imam Moustapha Cissé moo jiite seen délégation lew na kaneen ca Kaolack imam Ousmane Ndiaye moo jiite seen délégation Wokam sëñ xalifa Gueye ak jaraaf Mouhamad Gueye ànd nañu mbooloo RIS maam Abdou Sine teew na ànd ak mbooloo Mouhamad Khalifa Ndiaye Jende cheikh Mouhamadou Khalifa Diaby moo leen fi teewal bi ñëw naa imam ratib Mouhamadou Amin Bodian ànd naag mbooloo marsasum Moustapha teew na fi ànd ak mbooloo hayatul amal alxayriya oustaz Moustapha Pouy teew na ànd ak mbooloo alxaaji Bamba Sourang ca Saint-Louis njabootam yabal nañu délégation Pape Abdou moo ko jiite nañu sëñ Moussa si si teew na ànd ak mbooloo ambassadeurul islam muy sëñ Aliou Dramé teew na ànd ak mbooloo maam Maxtaara Gajaga euh, njabootam suñ Cheikh Astou Gajaga moo jiite délégation ba imam Thierno Kanji euh, ñëpp xam ko ci Njaaréem njabootam alxaaji Kanji moo teew ànd ak mbooloo sëñ alxaaji Kanji Ngourane sëriñ Cheikh Seck moo jiite délégation ma ànd ak mbooloo jaamal sëñ Ousmane Cissé ku ne xam na jaamal ak lu bari ci kilifa yu foofu la ñu jànge teew nañu ànd ak mbooloo sëriñ Chouaïbou Badiane teew na fi sëriñ Abdou Cheikh Abdou Khadir Kane xam muy almaami sëñ Mor Mbaye Warak yàlla na ko yàlla dolli ay leer njabootam yabal nañu Cheikh Ibrahima Fall mu ànd ak mbooloo alhaaj Abdoulaye Mbeng njabootam alhaaji Cheikh Mbeng moo jiite délégation ba Cheikh na ànd ak mbooloo waay Karamba Souane yabal nañ Oustaz Cheikhouna Souane rabitatu al aima wal wuaaz yabal nañ Cheikh Mouhamadou Mbaye Ansaaruddin ca Italie di ay tubaab Tabac wal nañ délégation Serigne Siré Souaré moo ko jiite jamiatu al aimatul ulama ca Saint-Louis sëñ Mouhamad Jabel Touré ak mbooloo ñoo fa teew njabootuk Cheikh Ahmad Diop ngay ci daata Diop dëkk bi teew nañ fi ànd ak mbooloo ku ne xam na diggante Mauritanie ak senegal shajara wal jaw musbidun wa xawli fajara waaye gànnaar mu ne bayaatuhu fil barri taxta shajara wal jaw tayyibun barara moo tax président Mouhamad Cheikh Mouhamad Mouhamad wulu Cheikh Al Ghazouani def na na mu daan def teraanga yu bare bare bari moom la jox sëriñ bi ki nga xam ne mooy chef protocole am moo leen jiite shu'un al islamiyya wa taalim al asli ci Mauritanie ministre ñëw na ànd ak mbooloo zaawitu Cheikh Ahmad wul Fatan di xaritu sëriñ Cheikh Doudou Sarr ñang ca la bokk Cheikh Sadbou Dia mii porte parole xalifa bi ca la bokk Cheikh Maxeet Diop tam ca la bokk zawiyatul xaajiyin al Cheikh Abdoul Wadud teew nañu ànd ak mbooloo zawiyatul al mabrouk al muxtaar wul loolu sëñ Muntaxa doon jànge xam-xam teew nañu ànd ak mbooloo zawiyat adaymaaniyin yadaali teew ànd ak mbooloo zawiyat cheikh ajfaq amar al yaqubi cheikh mouhamad lamine moo leen jiite zawiyat ashurafa tigmatin docteur ahmad bamba sayar moo leen jiite zawiyat ashadaliya ci rooso cheikh baba taal mi ngeen xam ci touba moo ko jiite zawiyat garak ahal garak def nañ délégation zawiyat ahal baba wul Mouhamad Luqman def nañu mbooloo zawiyat ahlu Cheikh Ishaq wul Cheikh Ahmadou ànd nañu mbooloo zawiyat ahlu Salahi ànd nañu mbooloo zawiyat Cheikh Ahmad Abil Maali def nañ délégation yiin dañuy yàgg ak Serigne Touba def nañu délégation zawit cheikh sir mouhamad attagin attaginiti cheikh mouhamadou lamine moo fi teew jiite délégation ba alhaj alhaj mushri moxtuma laana mi ngeen xam ci sar saara naag mbooloo zawit cheikh al khadim ci Nouakchott cheikh cheikh wul bukka jiite ko ànd ak mbooloo zawit ahlu baya ànd mbooloo zawitul mouridiya te kent cheikh moo ko jiite ànd ak mbooloo buutu limit yebal nañ délégation Zayed Cheikh Mouhamad Mouhamad Vaal Moutali ànd ak mbooloo jamiat Cheikh Ahmad Bamba li taasiis al uxuwa al Mauritanie Sénégal yi ànd nañu mbooloo ñëw Cheikh Ahmad Wul Ousmane Jamal teew na ànd ak délégation Zayed Cheikh Ahmad Wulul Hassan Wul Hamadi teew na ànd ak mbooloo Mouhamad Vaal Mouhamad Sidir ak Mouhamad wulu Cheikh Mouhamad Waal teew nañu ànd ak mbooloo zawet Cheikh Mouhamadul Haafid al teew nañu ànd ak mbooloo maa ngi la doon seen léegi zawet Cheikh Mouhamad Mukhtar wuldu Daha ànd nag mbooloo maalil wazir Badine ñëw na ànd mbooloo Côte d'Ivoire Cheikh Ousmane Diakité député la la ca parlement ba te nekkoon tam rais jamiatul azhar saabiqan teew na fi ànd ak mbooloo yaman ak cheikh abdul fatah qasim doon kilifa gu mag ca yaman teew na fi ànd ak mbooloo al urdun cheikh izuddin akram abdul hamid doon imam ca italie teew na fi ànd ak mbooloo tunis docteur abdul fatah reddadi teew na fi ak délégation Ghana cheikh moustapha abdou raouf teew na fi ànd ak mbooloo bene ilimaani masjidu aynu rahma tudd Cheikh Lafia Idriss teew na ànd ak mbooloo Allemagne ki nga xam moo jiite conseil supérieur islamique di doctor docteur Kohayla Mouhamad teew na fi ànd ak mbooloo Maroc Sayid Khalid Touzani nga xam moo jiite ANP teew na ànd ak mbooloo Gana tam am na keneen kilifa muy Cheikh Abdoul Hamid Moustapha bu ñëwee ci al mamlaka al arabiya saoudiya safir saad ibn abdullah an nufayci teew na fi ànd ak mbooloo mooy ambassadeur ba Guinée seen ambassadeur teew na fi ànd ak mbooloo Afrique du Sud ambassadeur ñëw na ànd ak mbooloo Malaisie ambassadeur ñëw na ànd ak mbooloo Palestine ambassadeur am ñëw na ànd ak délégation Zimbabwe ambassadeur euh, union union européenne teew na teewal yabal nañ ku leen ku leen teewal France yabal na délégation Libye yable na na Tchèque Soudan yable na États-Unis yable na Éthiopie yable na Mali yable na Soudan euh, euh, di Sud yable nañu Pays-Bas yable nañu Japon yable nañu ñu France yable na Koweït teew nañu Qatar teew nañu Namibie teew nañu Gambie moom seen ministre bu tudd Ahmadou Ba teewoon na ànd ak Pape Demba Diop mi nga xam ne moo fa yor kàddu Serigne Mouhamadul Mountakha bii may waaj a tudd al sayid yunus al sabaari raisul wafd al ilmi al mahalli ca qunaytara al sayid yaxya alawi raisul majlis al ilmi al mahalli ca ben masik al sayid muhammad darqaawi raisul majlis al ilmi al mahalli ca ben suleymaan sayid muhammad bouchirka raisul majlis al ilmi al mahalli ca aynu saba sayid nasir bu saba al mudir al mali li muassasat muhammad muhammad asadis lil ulama al afariqa sayid anwar mabrouki mi nga xam ne moo fi teewal Royal Air Maroc kon daal lii mooy délégation yi nga xam ne teew nañu ci bis bi Cheikh Ahmad Tidiane Sambu ONG Ansar sëriñ Aliou Dramé moom waxoon naa ko léegi ambassadeur l'islam kii itam waxoon naa ko mooy waa waa kër Saad Bou xalifa ba yàbbale na Medina Gounass wax naa ko Rumde wax naa ko buur siin ku doom wax la ndax dëgg dakaar yable na Wouromadio xam ngeen Wouromadio ak Thiénaba duñu ñaar sëñ Alpha Ba ma nga nële taxaw ma nga nële di rakki xalifa Wouromadio moom bu fi teewee rek na ne Wouromadio ñëpp teew nañu kon daal loolu mooy délégation yi nga xam ne euh, waxoon naa ko waxoon naa ko waaw waaw wa AIS bu sëriñ maam Cheikh euh, Mbacke moom itam euh, ku xam na taxaw mi waaye bala muy bala muy wax dañuy jox sëñ Mountakha Gueye euh, bayit yu néew bayit yu néew yabal na délégation ñu déglu sëñ Mountakha Guèye bismillah ñu déglu sëñ Mountakha Guèye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaan يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما من ظنني غير خديم المصطفى Oh. daar alqaraari walmunaa walminna man zanna annahu yakunu abada wa ahlu badrin wa ataani suu wa ahlu badrin وأتاني رسول ربي عني الله الملائكة عند ربي إذا كتبت تهتز عرش الله جل وغال كل Yann Dieye ministre de l'hydraulique Balla Moussa Fofana ministre de l'urbanisme Ibrahima si ministre de la santé Khady Diène Gaye ministre de la culture jeunesse et Mabouba Diagne ministre de l'agriculture Aline Dione ministre de microfinance ma ngi ànd ak le gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall ànd ak préfet Mbacké ànd ak sous préfet bu daam ndaam euh, ki leen tartu nag mooy le maire de Touba le commandant le de groupement des sapeurs pompiers ma ngi fii yër jiite ko ñu koy jox parole bi ñu déglu ko salaamaaleykum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 weesu na lépp loo xam ne mu ko fiy def wala bëgg na ko fee def li mu fu def lu mu fi bëgg a def yéenem weesu na ko ndax tolluwaayu Touba ci réew mi ñuy fàttali mbake mooy département bi ëpp nit ci département Sénégal Touba moo ëpp nit après dakaar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 ak jubanti te ñu warmalante mooy tandiku wax yu ñaaw président public moo ngi woo ndaw yi ñu mooy ci gaal yi ak tukki tukki bu amul jaarul ci yoon sunu réew ñun ñoo koy defaral sunu bopp yi am place sunu la ñun ñi bokk ci gouvernement bi maa ngi dolli ci tour président de la république di sant comité d'organisation bi nga xam ne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 wax ji rafet na lool ñun ñëpp nag ñu àndandoo déglu Cheikh Mamadou Bachir ci kàddug sëriñ bi Right, right. waa kon ñu may gan ñi nga xam ne waaw kon ñu may ñi nga xam ne ñoo fi teewal euh, seeni réew ñu toog xam ngeen ne ndox mi dafa bari bi ñuy ñëw alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiyallahu taala an abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah ridan yashmalu zawihi min al ali wal atbaai wal ahiba fadiya wasama mashayikh wal ulama maaliya waziri daaxiliya mumathili raisi aljumhuriya wal wafdi almurafiqi lah ashaaba saada assufara wa aada assilki diplomatie almuctamadina bi biladina ayuhal ayuhal xudurul karim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa ba'd fa yushni wa nahnu fi ixtitaami faaliyatil maggal li aami sittatin wa arbaina wa arbaimia wa alf an uwajjiha ilaykum haasihi alkalima bismi samaahati alxalifati al aam lil muridiya alcheikh Mouhamadin Mountakha Mbacké حفظه الله تعالى وأطال بقاءه فينا محفوفا بالصحة والسلامة شاكرا لكم باسم سماحته على مواقفكم النبيلة وتضحياتكم المقدرة للحضور والمشاركة معنا في هذا الاحتفال السنوي لذكرى الغيبة البحرية لمولانا الشيخ أحمد الخديم allazi afna xayaatahu kullaha fi ibadati lillahi wa xidmati rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam wa kaana radiallahu anhu qad amara dawihi min al ali wal atbaaci wal ahibaai bi ihyaai yowmi thamin asar min safar min kulli aamin shukran lillahi taala ala ma ancama alayhi min annicami zahira wal batina bi sababi mihnati tahrib التي عاناها وكانت قد ابتدأت في هذا اليوم ستة ثلاثة عشر وثلاثمائة وألف وتأتي ذكرى هذه المرة بعد مئة سنة من رحيله من رحيله إلى الرفيق الأعلى فجزاكم الله خيرا وشكرا لكم هذه المشاركة الفعالة وهذا التداوم الأخوي الذي برهنتم به من جديد ala imanikum alqawi wa tafaulikum alijabi maha muqtada qawlihi taala innama almuminuna ixwatun wal atbaa wal ahbaab wa xayrihim wa kaana radiyallahu anhu yaqulu fi alaaqatihi bi xayrihi min al aqaarib wal masaayix wal umara wal atbaa wal ahbaab wa xayrihim wa kaana radiyallahu anhu yaqulu almuminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat wa min duhaa'ihi wa jacal jamiiha ixwati wa nasabii fi rahmatin yowma sidaadi nasabi wa axrina bi xubbi kulli wajal jamia al muslimin fanuk fa dura yaa man jalla an qawadin irham jamiha al wara ya haadiyan rada طلب النصيحة اعلم بأن الدنيا لا تأتيك إلا بما تنزعه منك إلى قال وعليك بإعانة أمانة الضعفاء والفقراء والمساكين والانكفاف عن الجور والظلم فمن جارب ورحمة الله li ko waral nag sëriñ bi da koo jëndoon mu jóge siin yaxa agsi daanaka man ne saa wax ne moo tax na mu war a mel melu kon ba dañu taala yu bàyyi ko ci moom ci bisu màgg bi nga xam ne Serigne Touba da ko jagleel subhanahu wa ngir sant ko ci ndam lu rëy limu ko defal ci liggéey bi mu doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kàddu yi nag cant gu rëy bokkal réew mi rawatina kilifa yi jiit di jokk bu baax bokkook lislaam ji ci gën mu gën a rafete te fas yéene lépp lu ngeen nekk mu ànd ko ak yéen ndax xam na ne sàmm ngeen ko na mu gën a rafete seen digg délégation yi fi teewal njiite réew mi président de la république Bassirou Diomaye fay ñi ci njiital ministre intérieur de sénéral Jean-Baptiste Tine di réew mi yëpp ay cant ak i ngërëm ci njiite réew mi ci taxawaayam ak mboo màggal gi ndax xam na ne diggante bi gàtt na ndax juróom weer bareegut waaye wane ngeen ci seen yéene lii nga buñ ci tuddee premier ministre Ousmane Sonko nga xam ne ñoo def bët yëpp sëriñ bi la yóbbanti mooy ak cant ak ngërëm di la di ko jeexale cant gi ci yow mii nga xam ne nag yaa doon. di sant bu baax mboolem kilifa yoon wi ci seen taxawaay bu rafet ak seenu jàppale ko ci liggéey Serigne Touba bii mu te ci loxoom di sant di gërëm bokki taalibe yi nga xam ne ñoo wuy si ndigalu Serigne Touba li mu jox ci bis bii ñu doon dundal muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar mu sàkk woon ñu ko ci sant yàlla ci xéewal yu rëy yu bari yu koy dikkal te sababa woon ci tukkub géej gi ndax sant dafa bokk ci xéewal yi gën a màgg ci jaamu yàlla balillaaha fa'bud wa kun min ash-shakirin wa man yashkur fi innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fi inna allaha ghaniyyun hamid nee na bu ngeen bu ngeen santee ma dol leen waaye bu ngeen gàntoo mi ngi leen di ndik ak ci mbugal la in shakartum la azidannakum moo inna sëriñ lépp mi ngi ko jeexal ci rafetal diggam ak boroomam ci jaamu ko bil imaani wal islaami wal ihsaan jeexal ko it ci rafetal digg mag jaamu yàlla yi ak jaamu ko ci sunna wax na ne addu ilal ilaahi bi tawxiidi wa ma raaytu anhu min mahid adhu ilayhi bitafaquhi maha defal leen ba kenn bëggul di moroomam ànd ak jàmbur yi ci jege leen ak jëriñ leen ànd ak buur yi ak warum ndombay tànk yi ci gindi leen ak laabiiri leen boroomam la ko te moytu ci ak tooñ ak làqu tooñ ak farko tey dimbale néew ji doole yi ak yërëm leen ak baña a xañ kenn akam daan ndax at mu jot bu ma saan agsi nattu yi yépp dañu koy ful ci metti metti ak ci tartar waaye lépp mu di ko dékku wa fii kulli shahrin zaydu rebhi wa fii safar nee weer wu nekk ak weer safar wu ne yàlla day yokk samay ton wu mu wax ma ne may ko yàlla may turabi baxda jamili baxda jamili sabri fi ixtirabi moo tax mu wat taali bi yépp ak képp koo xam ne mbégam sa mbég la weera safar wi nga xam ne sin moom lay wooye safarul xaraaji ngir ci le may yi dikke dana ko nattu yi nga xam ne suñu bam nattoon ko sëriñ bi muy al al anasir arba arbaxa te tamooy suuf sawara ngelaw ñoo dambi àdduna bi ci la yàlla di jaarale xéewal yi waaye waaye ci la yàlla di jaarale nattu yi suñu xoole yonente yàlla yunus nattoom ci ndox la jaare nekk na ci biir gi géej lu ma ñeen fukki fan fa sahama fa kaana mina mudahadin faltaxamul xuutuhum bulihun yonent yàlla Souleymane yàlla dafa tàggatal ngelaw ba nu ko bëggee rek ngelaw def ko topp ko ci ni mu ko bëggee wa saxarnaa lahu riiha tajri bi amrihi ruxaan xaysu asab boole ci lay mbugale fu kullan axasna bi sanbihi fu minhum man arsalna alayhi xaasiban wa minhum man axasathu sayxatu wa minhum man xasafna bihi al arda wa minhum man axraqna tama may googi nag moo waral nit ñi dëgmal ko waltasfi kulla man li ajli maradi li qaadi yaa man li yaquudu xorodi nee na ku ñëw ci waltasfi kulla man li ajli maradi li qaadi yaa man li yaquudu xorodi nee na ku ñëw ci man ngir tawat ju ko dal saafaral tawat ja wa tontu kulla man li ajli jahli lin qaada ilman maa hiyan li jahli ku ñëw ci man ngir réer joo ko xam-xam bu ko faral ak réer ba faw jàmbat yépp da ko daa faj ci mboot mi ko yàlla jox wax na ne hadaani mu dellu waxaat ne ataani zikra alxakima saaliba lii lii hudaa huwa alida lii xaaliba yàlla jox na ma alxuraan jox ma jub njub gi ci nekk mu ne yàlla jox na ma alxuraan jox jox na ma alxuraan jox na ma njub gi ci nekk notool na ma noon noonu suñu xoolee sëriñ bi ñeenti élément yooyu yëpp yàlla nattu na ko ci ndax yóbbu nañ ko ci géej gi diir bu yàgg asam asamaan si di taw ci kawam mu ne ci géej gi di tumuranke fa man yulqi nii bahri raw man li xurbati fa lii min ilaahi rawdu fii kulli xaylami sëriñ bi napp nañ ko ci géej ndax ca ba ba tax yoon mu mu di di ko tudde al xaybatul bahriya mustafal musabit al aqdami mu ne yàlla jiital na ma ci mboolem ñiy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke moom mi nga xam ne mooy jàppal gaa yi seen tànk deen nag daana wax ne xéewal fareen ba di sax kenn du ko xam ba ko dagg moo tax wax ne ne radiya anni man raditu anhu wa xaala li waxu wa sunhu yàlla gërëm na ma ma nit gërëm naa ko mën ne ma jëlee sama mbóot mii te nga ñoŋal ko mu dellu waxaat ne wa qaada lii wa lii qaada sirran xaaba an xayrihi lmuhit yàlla jox ne qaada sihi lxawaaliki uniiru qalba zaliki bi zahiri wa mubhami nee na suñu boom jox na ma dindi lëndëm lëndëm ci xol yi moo tax damay leer xolub xolub murit bi sóobu ci saayir ak baatin lool ci sëriñ Saylu Mbàkke dégg naa ci kàddoo mu ne waxoon na ak Cheikh Mahamadou Moustapha ak ak Cheikh Mahamadou Fadi ne seenub liggéey ci nit ñi jëm ndax yàlla damaa liggéey suñ borom ba mu fay binde fi kon yàlla damaa fay nit moo tax du ngeen tàggootu nit li ma leen di digal nag mooy suñu dikkee fi yéen bu kenn tumuranke seen kër def leen fay njaq bu fa kenn xiif mu teg ce mbooloo mi ñëw ci yéen du weesu ñaar ñii kuy laaj ak kuy joxe mu ne ñaar ñoo ñi rek ku leen xàmmee yàlla jëppi la waaye nag yàlla def na joxe waaye ñu ñi joxe jamono junne ñoo ëpp ñu laaj waaye li ma leen li ma leen di wax daal laaj aw fit ndax ku la gën a tabe bu ngeen doon xeex moo lay moo lay mën Sëriñ la goo xam ne ku ko yàlla baaxe war ngaa xam bu baax li la yàlla defal te fonk ko te bañ ko boole ak dara ndax yàlla mi ko bindu moo ko defal fitra salima teel ko won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 war ngaa xam bu baax li yàlla defal te fonk ko bañ koo boole ak dara ndax yàlla mi ko bind moo ko defal fitra salima teel ko won yoon wu muy jaar ca teel bal wata tiflan ndax yàlla mi ko bind moo ko defal fitra salima teel ko won yoon wu muy jaar ca teel ci nangu ak sàkku xam-xam te la ràññiku lool ci lu baax ak xam-xam féete kilifaam fépp yoral ko daara ji ba mu demee ba jisatu leen mu sóobu yoonu gaay yàlla yi yàlla defal ko yitte ju kawe mu jóg ne dan أحق جملة الورى بخدمتي بالنظم والنصر رسول الخدمة ca loolee la sax mu jural ko bakkanam ak dundam ak léppam billahi lasi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati xaraka المدينة fati aduduhi al ayman ne ko tubaab yi daf oh sax mosuñu ko dégg ci man lu ne mu jàng mu jànkonte ko fa nattu yeneen ñu teg ko mu jaayanteeg boromam ne nattu diis mu tar tar nee maa ngi leen maa ngi leen di yee di leen xamal ne toog naa lu ma ñeent fukk yoo xam ne maa ngi nekk ci diggante lu mel ne sukuraat ak najug bàmbeel lu ma génn rek la sifa ak ak woroom xam-xam yi mooy seen yitte jëpp te ñoom ñëpp a gàkk muy ni ñuy fexe ba defar nit ku baax ak nu ñuy fexe ba defar société bu baax te mucc ayib dale ko ci ñi fi jiit woon ci ba ci yàlla mi ñu fi rek moo ñu mën a wan fi ñu jaar ba am ci solution wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan ulaika allazina hada allah hadahum allah fa bi hudahum muqtadin moo tax Sëriñ Tuubaa bu ñu bëggee wan nit ñuy defar nit ku delloo ci yonent bi sallallahu wa sallam noonu mu indil ñu modèlu murid sadix mooy nit koo xam ne ay yëngoom akuk dalam ay waxam ak i jëfam ay defam ak i didem len len dong la cay xaar mooy am ci ngërëmu boroom fu ma cay met ca la kon jëmu jume noonu lu nu soxla ngir mën a jag ak defar suñu àdduna ak suñu wéyoo ba mu jag modèle bii Serigne Touba andi ci àdduna mu di modèle Modou Sadikh ëpp na li ñu naan citoyen modèle ndax citoyen moom weesuwul àdduna ak lu ko jagan waaye Modou Sadikh nag li mu làmb mooy lu ak sa digg adduna la si ko addina bi la si waxiru kon nañu xam li ñu sëriñ bi indil ak fi mu jaarle bu baax ak leneen ak len ak ak ak ak ni mu gàggante adduna it ba tabax aw xeet wu mucc ayib loolu it ni mu defoon ca ca laaj bu njëkk bi rek la defaat mooy wala warudduhu ila rasul wa ila ulul amri minkum la alimahu الله بالسنة التي هددني شرفت الكل والقلب خاشع القرآن nag li muy ci tontu mooy إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب loolu nag day laaj déggin xóot ci alxuraan di laaj it mafhumul muxaalafa te mooy bi sabu bi dëxëñal ci dëkkam bi te mooy taxawal société ci baasu imaan ak al amalu saalih ci maanaam mi gën yaatu nga xam ne laa moo ne lépp lu baax lu yàlla gërëm moo tax jàll fi mboolem principe yi jegal dundu doomu aadama ci àdduna ak alaxee bayu ci dara kon sëriñ bi li mu ñu andil am na amul am na lenn lu ko mën a may kattan lu namp soowum ndeyam bu kon bu bu nanguwul a namp na muy def xanaa wuy ji boroom rek mu ne nan lay nan la ndey di nàmpale doom ju mu tëg doom ju mu bët mu teg ci ku ne mu ne ndey ju ne mu teg ci gone bu ndeyam bare soow kooku xool xam ko daa bëgg nag ngeen xam ne seen ndey jii am na soow mu doy mu doy sëkk te ko te ko jeexle ku nàmp ci moom da am kattan da am xel kon toog leen ci seen day ba mat fer waaye bu leen ferale it bu leen dem di lekk suuf ndax kuy lekk suuf te bëwoo ko faw nga te taw suuf si ma rek mooy adduna ak xoyom xoyom ak jëng jëm ci ni ko Cheikh Mouhamadou taxa li ñuy fàttalee waxtu ne wax na ko ci màggal gi rek ci woote màggal gi ne na ñëpp gën a dëgmal gën a dëddu àdduna gën a dëgmal sëriñ bi sëriñ bi wax na kon ñam yu may leen di digal ñam yu may leen di digal seen ndey kon sëriñ bi wàccoon nag noonu ñoo ci des képp ku sukk ne aslamtu nafsi ba jaay war ngaa xam ne moomatoo sa bopp al xurru xurru maa baat de ak li mu nanguwul jël sifaatu muri muridi teg ci sa kanam boo ca xotti rek xam yaakaar naa ne bu ñu xooloon ci moom sunu dox dana gën a gaaw mag ñi àndoon ak sëriñ bi nekk moom xumaag lu ne daj na ko lu ne daj nañu ko jafe-jafe bu ne daj nañu ko wama ma foo mastakaano waaye yàlla jaral leen ko sëriñ bi jaral leen ko ba tax ñu seen borom yëpp ba am lu kenn amul li ko waral mooy fa ñu tegoon sëriñ bi ak limu leen jaral li koy firndeel mooy bi ñuy liggéey jumaay Tuubaa ji lu ne dañ nañ fi daj nañ ko fi lu ne jànkonte ne yow moom waaye seen Pastef jaral leen ko ngir xam ne li sëriñ bi bëgg dara mënu ko te am ay xeer lañu daa yenoon ndokk ba Tuubaa lu jege fukki kilomètre di dox ak seeni tànk ak di toj carrière ba jottali yónnent sëriñ bi mu jëm ci mboolem kilifa yoon wi ak mboolem te kon ñu gën a góorlu ci ñaari yitte yii ci sunu kanam bu jëkk bi mooy daari Cheikhul Khadim ji nga xam ne def ngeen ci li ngeen man ak li ngeen mënul lu ma bëgg yaatal ci jumaayu Tuubaa ji nga xam ne sëriñ bi ko santaane woon nekk ku ci feeñ feeñ ba faw taalibe bu ko man wax ne na ci joxe ñaar fukk ak ñett mu nekk bu noppee lu mat xam yu bari na may wax ak yéen jàkkaa ngi fi ñetti téeméer jumaa ngi fi ci diggante 91 na waaye nag nañ xam ne daa waxoon ne bu université bi àggee at mii da bëggoon woo taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu jaayante ko nañ defoon raay bi ak nañ def Masaalikul Jinaan waaye yàlla def nag bi nguur gi ñëwee jël seen yitte jëme ko ci moo tax moom jël lépp jëbbalaat ci lu ngeen xam ne ña nga ca te wax nañ ko ko ma ngi leen ci dilu moo tax soññu leen ci waaye añ ren jële ko buggoon a tàmbali liggéey Sëriñ Tuubaa kon mi ngi sant taalibe bi yëpp xam ngeen ne waxtu wi dañoo xoj fi mu nekk nii euh, ak tamit engagement yi nga xam ne télévision nationale am na ko donc René Léon Fonseca bu fekkee yaa may dégg rek donc euh, ngoog li nga xam ne moom moo di euh, mu ngoog donc Fonseca bu fekkee yaa ngi may dégg rek maa ngi lay delloo kàddu gi waaw ñu jël ñaan gi rek après ñu tëj ñu may kilifa yi ñu may leen ñu génn euh, waaw mbokk yi ko gisandoo ngeen doon ko am direct euh, ci Touba TV ci cérémonie officielle boobu nga xamante ne ndigal la lu balaw bawoo ci Cheikh Mountakha Mbacké euh, ñëw ci kàddu ko sëñ Bassirou Mbacké Khadre euh, sëñ Modou mu mel ni ki ne cérémonie bi sëriñ bi tënk na ci ay ponk wala ay point yu am